que dañoo gis ni depuis euh, Covid 19 euh, euh, bi dugg fi ba léegi gis nañ daal jàpp na ci te mi ngi góorgóorlu lu nekk mi ngi ko ciy def lu mu mën lu mu mënul léegi nag moo tax ñun ñu taxaw suñu taxawaay ni ñun comme jigéen la ñu ñoog Adja Wuli mii Adja Wuli Mata Diop Adja Seynou Seynabou Ndour Ndey Seynabou Ndour ñu daadee ni ñoom Ndey Cissé ñu daadee ne nanu nanu jàppale monsieur ministre Seydou Gueye jàppale bi mooy ñëw dajaloo indi ay saabu indi ay Euh, gel gel hydroalcoolique indi ay euh, omo indi satala indi yëpp li nga xamante ni daal dañ koy soxla pour xeex Macky nee na force Covid 19 ñun nag ñu jàppale ko ci loolu gis taxawaayam gis lu muy def yëpp di ko jàppale waa Médina. ñëpp daal dugal nañ seen loxo ñoo jël lii yëpp ngeen di gis ñu ngi nii ñu ngeen koy gis ñu daal di koy teg ci loxo Seydou Gueye di ñaanal mu xam na fu mu ko war a teg. yaa ngi déglu di mu teg ci seen i loxo ñu dàq Medina feebar bi feebar bi génn dema dema dema dem sore Sénégal yaa ngi déglu génn fi parce que loolu mooy ñun ñi li nga xamante ne mooy li ñu bëgg ndax dañoo bëgg delluwaat ci lu ñu xamoon mooy di dund ñun ci suñu biir di demlante di dikkalante te lii moom fa mu jëm baaxul yàlla na ko fi yàlla yemale yaa yàlla bu mu kenn yaa ngi déglu di ñaan Seydou Gueye bi nga xamante ne yàlla moo ko fi teg mu nekk suñu ministre yàlla na ko yàlla jàppale vraiment gërëm euh, jigéen ñi ci initiative yi ñu jël ku ci nekk indi kii butéelu eau javel kii omo kii saabu ñeneen yëkkati xaalis moo leen permettre ñu jënd yi yëpp donc initiative bi euh, Adja a Diop moo ko lancé ci jigéen ñi nekk Médina ñoom Aram ñoo wuy si ko Ndey Seynabou Ndour ak euh, Ndey Cissé Maam Sey Naani Si jigéen ñi nga xam ne daal ñu ngi yëngatu te bés bu ne li ñuy def jàppale Médina moo tax donc ñoom ñoo jël initiative bi day ñëw rek yokk jéego yi nga xam ne jotoon nañ ko def jëmoon ci sant de santé yi parce que li bii ñu jógee dañu dem ci centre de santé yi ak établissement yi nga xam ne dañuy accueillir du public dem seeti maire yi seeti ñëpp yóbbu suñ ndimbal lii it euh, ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant ni waa Médina ñoo ko moom dinañ leen ko yóbbul initiative yi nag bare na biir Médina ñu ngi koy rafetlu am na sax ñu jóg ne ñoom dañuy dajale cent francs cent francs pour mu yaatu ñu dimbale ko waa Médina ñoonu it sunu ndimbal dina yegg ci ñoom am na yeneen jigéen yoo xam ne ñoom dañuy liggéey ci transformation ñu ngi defaral seen bopp ay saabu pour mën ko yóbbu jox ko nit ñi donc initiative yëpp dañ ciy jàpp am na yeneen autorités yu fi nekk maire bi jóg na def li mu war a def ñu ko ciy jaajëfal ñeneen nit jóg nañu ñu ci mel ni waa CATB yóbbu li ñu am joxe foog naa ni loolu moo war ñu ànd nekk benn defar parce que feebar bi moom ànd booloo la te dañuy sant yàlla bi ñu amee njiitu réew moo xam ni fees na place am parce que wane na direction bi génne na moyens yi te mobiliser na sénégalais parce que yàlla dimbal na ko donc dañ ciy jaajëfal autorités religieuses yi nga xam ne nangu nañu dàq seeni manifestation di ci jaajëfal ñi amoon ay yéene activité ba pare dàq ko di gërëm nag classe politique sénégalaise bi bi nga xam ni ñoom ñëpp gis nañ tey jii benn drapeau la ñu war a xool ñun ñëpp muy drapeau Sénégal vert jaune rouge ak étoile parce que Sénégal am ndam moo ñu war te li président Macky Sall di def génne na koom bu doy pour ñu mun dimbali nit nii ci wàllu dund am na ko koy wax ci suba sax maa ngi koy dégg mu ne dund gi am na solo waaye ndugg mi it am na solo donc ñaar yooyu président Macky teg na ci tànkam fexe ba ñu feebar faju ñi leen di faj am équipement yi leen di protéger donc ñu ngi jaajëfal corps corps médical bi di soutenir également ministre bi nga xam ne moom lañ dénk santé di rafetlu li fi waa Médina def yëpp leen wax ndam li Médina moo ko foog naa ne xale yi commencé woon nañ di football ak gars yi naan ay match euh, coup d'envoi 20 heures mais tey foog naa ne xale lu Médina yëpp li ñu jàpp ne force de l'ordre yi ak service de santé bi équipe nationale moo xew lee donc waa Médina ñoom ñoo taxaw comme douzième gaynde jàppale équipe nationale bi nga xam ne mooy xeex virus bi pour daan ko et yaakaar naa ni le miracle contre la lutte dans la lutte contre le le Covid 19 miracle Sénégal dina am lu important lu mu génne donc gërëm jigéen ñi bu baax sant leen ne nag li mooy seen taxawaay du lu du lu ma bett parce que dañu takku Médina rek leen ñor defar Médina moo leen ñor te loolu bu fekkee moo la intéressé wérgu yaram ak santé waa Médina da nga ciy jàpp. donc di masawu famille yi fi xam ne ñu ngi fi infecté den wax ni sunu solidarité mi ngi ci ñoom ñu ñu yóbbu quarantaine di ñaan waa Medina ñu continuer raxas loxo yi ba mu set raxas ndog loxo te amul saabu tooyal sa loxo la pour mu set jëlal saabu wala gel donc ay eau de javel la saabu la omo la ay satala la ay euh, paan la ay siwo la ay masque la ak lépp li nga xam ni jàpp nañ bu ko nit jëfandikoo dina mën a mucc ci lii parce que feebar bi dañu koy joxante donc respectons ñi nga xam mooy gestes te ñu jàppale force de l'ordre yi ci liggéey bi ñu liggéey tey Médina ñu ñooy douzième gaynde par rapport ak couvre-feu bi